Eh, àggoon ci eh, àgg ci tàmbalee xat dañ koy sante yàlla bu baax nag ndax lépp yaakaar la joo xam ne ni jullit ñi am nañ ko ci ñun ak kóolute yàlla bu suñ borom tas yaakaar ci barkeb alxuraan barke Sëriñ Tuubaa ba tax na nag ñu toll ci di bëgg yaatal barab bi gis nañ mbokk jullit ak mbokki taalibe yi tamit ñu baree bari ñoo ngi ciy def seeni barkeelu waaye ñoo ngi ciy soññaat ak di ci tàllal loxo képp koo xam ne nii rek bëgg nga def dara ci yoonu yàlla boo ko ci defee tamit def nga ko ci eh, ci ci ci ci yoonu yàlla def nga ko ci toolu Sëriñ Tuubaa ndax dara génn ci alxuraan waaw te mooy liggéey yi nga xam ne bëgg nañ koo def ci daara ji ngir mu gën a yaatu ba ku fi ñëw ku nekk itam am sa yaakaar ñu mën laa jëlal sa doom ngir mën la ko jàngalal Euh, ñu ngi ñu ngi ci sore waaye tamit ba léegi képp koo xam ne nii am nga loo ci def rek incha allah nga def ko ci ñu mottalee ko euh, liggéey bi ndax des na te ñu fas yéene andil ma bu amati solo te mooy bég rek ci ndigal li nga xam ne nii Cheikh Mouhamadul Muntaxa afisahullah waraa joxe na ko muy kàddu yu leer jëm ci màggalu Tuuba gi ñu jëm incha allah ci làmmiñu Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Cheikh Abdul Xaadir tem doonoon loo xam ne ni yu bari doon nañ ci jiixi jaaxa ba xam nan lañuy def léegi nag leer na ci bopp ñépp ne sëriñ bi màggal gi moom ba ci joxe ndigal nee na yàgg na dara du ci soppeeku nam daan demee lay demee lim fekkoon maamam Cheikhul Xadim ak yi way juram ak magam yi ko fi jiitu daan ko def loolee rek lay wéyal ndax li ko fi bàyyi mooy sàmm Eh, ak aar kon nag nañu waajal màggal gi bu baax yàlla na nu ko suñu borom tabaaraka wa taala fekkeeloo ak jàmm ak xéewal eh, bu ko defee nag ndigal bu xasee jóg moom murit yee ko tax a jóg ñi nga xam ne nii ay jëfkati ndigal lañ ak tarixa bu ñu mën a bokk murit mooy koo xam ne rek dafa nam ma jëm ci suñu borom tabaaraka wa taala waaye ñun ñi nga xam ne nii kon ñun la sëriñ bi yilif ñun ndigal li moom faaw jëfee rek moo moo nu ci war te te sant mënta indi lu rut ndollan damay wax ne bis boo tudd rek mën nga ko askanale kenn màggal moom suñu borom rek nga ko mën a askanale boo tuddee korite nga ne feetu jullit ñi la boo tuddee tabaski ñu ne sunna la suñu royee sunu maam Ibrahima boo tuddee gàmm ñu ne bisu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye màggal moom boo ko tuddee kenn lañ ko doon askanale ku dul suñu borom ndax bisu sant suñ borom tabaaraka ko taala te sant day ndigalul suñu borom ci alquran mooy li gën a jafe itam mooy li ëpp itam daraja danañ ci ñëwaat ci fan yi waaye la in shakartum la na azidannakum rek doy na bu ngeen santee kat ñu dolli leen kon cant dafa mënta andi lorut ndolleen mënu ko ndolleen rek la mën a indi kon lor mënu caa juddoo waaw kon nag ñu waajal ko bu baax a baax nañ koy waajalee nag mooy ah, di seede xéewal ak suñu borom gi nga xam ne ni suñu borom tabaaraka wa taala moo na ko xéewale muy Serigne Touba ndax Serigne Touba kat eh, xéewal ak borom la kon cant dañ koy dañ dañuy seede xéewal ak suñu borom tabaaraka cant itam dañ koy jëfee ci ay cër di ko wax ci aw làmmiñ di ko fas tamit ci ab xol moo tax Serigne Touba ne xaqiqatu shukri la daa alima shuhuduna min sil jalali niama waa amalun biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yarda wa ruknun yustabaan li tax ma ne la mooy Cheikh Sidi la mu ko wax rek innama cheikhu nihmatun anama allahu biha ayatan min al ayat sëriñ bii kat xéwalu suñu borom la goo xam ne moonu ko xéwale mu bokk ci kiimtaanam yi am na naar bu ñu wax Hamad bun Hasan nettali na ci téeram ne bi Sëriñ Tuubaa déggee léegi dafa dafa caa teg ne bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri lazina ah kay Cheikh Sidiye li mu wax dëgg la li fi nekk sax kooku kat eh, xéewal la gu béra béra béra béra waaye nag ci xoli ñi ko yàlla xamal kon ñun yàlla nañ bokk ci ñi xam sëñ Tuubaa ñàkk xam sëñ Tuubaa nag eh, weesuwut nga defe ne boo jëmee fa moom lor da fay toppee ba nga ne man duma fa dem rawatina nag fan yi ñi dégg nga xam nee na ñooy ay murit lañ ñu wax na ñoom du ñu màggale waaw ma ne yow koo xam ne jiitoo mbooloo jiitoo woo dayira boo demee ci màggal gi doo takk sa ndigg dem ca waañ wa doo dem fa ñuy jànge kaamil ya doo durus doo def nen na waa léegi boo màggaliwut nu ñi nu nu nit ñi yëgee ne màggal si woo duñ ko yëg màggal gi moom ku dem mu fees dell ku demul tit mu fees dell séeréer ba kat daa dëkkoon ci wetu raay ba gis bu màggal jotee a ah, eh, saxaar gi di ko romb di fees dell oto yi di ko romb di fees dell mu jékki-jékki dal na ah ne xamu fu ñu jëm waaye du wéet dana xumb de xaaral ma topp ca kon nag sëñ Tuubaa mooy foo xam ne nii du wéet mukk mukk mukk mukk àdduna ak àllaaxira ndigal nag ab taalibe bu fekkee ab taalibe la la ko ca war nga xam ne nii mooy mooy mooy obligatoire am mooy obligation am ca loola mooy dal jëfee fa saasa kon nag yàlla na suñu borom boole ci taalibe yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne ni buñ déggee ndigal fa saasa lañ koy jëfee te duñ ko wàcc kon nañu waajal màggal gi eh, santee ko suñ borom tabaaraka wa taala jëfee ndigalal eh, Cheikhul Xadim tey ñaan suñu borom tabaaraka taala mu fekkee loo ñu ko ak jàmm te xam ne benn lor du ci juddoo ngëneel rek moo ci juddoo waaye nag ni ko sëriñ bi waxee nañu ñëw ci màggal si te euh, dëppale ko tamit ak contexte maanaam ak jamono ji ñu toll nañ ko nañ ñu ko dëppaleek moom mooy lépp luñ mën ci tegtal yi nga xam ne nii kat docteur yi dara ñu koy joxee ngir wattandiku ñu daal di koy def bu defee la ca des nag ñu bàyyee ko suñu borom tabaaraka taala te dafa ci njort ñoo ngi santaat mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi bu baax ci jàppale gi ñu jàppale waa daara Hikmatul mi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di woote waat di tàllal loxo jullit ñëpp ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéey ngir yokkee ko daara ji ngir eh, ñëw gi nga xam ne nii eh, dong yi ñoo ngi koy ñëw ñu koy sante yàlla bu baax a baax tey ñaan it mu gën a yokk mu ñu sañoon gone yëpp jànge alxuraan ñu yar leen tamit ci diine yar leen timit ci ak taalibe